waaw problème ndox am nañ ko jàpp na trop parce que gars yi fii andi woon nañ fi ay contour sax kenn gaale gi ñu bëri amoon nañ ay ndox mais dañ leen mujj coupé ñoo mujj dindi seen contour yóbbu ko des fois camion citerne boo fi ñëw dañ may ndox. ñaata yoon lay ñëw ci journée euh, non des fois semaine bi ñaar yoon la siy ñëw wala benn yoon. da koy fay am déet. non day ñëw rek pour may ndox nii rek. yéen en tant que maçon naka ngeen def am. ñun moom dañuy jënd ay seret ndox ñëw pour rot. ñaata seret euh, bi ñu ngi ko jaay 700. Euh, ay ñaata ngeen di jënd. jënd 3 barigo par jour. waaw. parce que yéen xam leen li tax lan moo waral la situation bi. situation bon si li ma dégg man si ay rumeurs yu daw mais gars yi dafa amoon magu bu gars yi doon def quoi si problème mu ndox mi. parce que dafa amoon ay plombiers yu ñëwoon doon monter euh, gars yi ay compteur di leen jox ndox te waa kii SDE jox leen autorisation boobu. il paraît que barki dem déggoon naa demoon nañ ci tribunal sax ba joxe euh, ba téye waa yooyu sax waa yi yor responsable boobu ba téye nañ ko mais moo tax ñu bëri ñi amoon ndox yëpp dañoo dindi seen compteur. xaw naa am ay jafe-jafe ci ñun lool waaw ndax ñun léeg-léeg ñu war a xëy liggéey ndox mi xaw a manqué daal loolu daal mooy suñu gën a nekk problème ndax. moy gëna comme buñu liggéey tamit nañ wara a journée bi wara doxay doxee du ñuy doxee. fan ngeen amé ndox yeen manam borom sareti dal ñoo ñuy lijjantil ndox ca des fois ñu dem ba yaag ñu la ndox mi mënatuma am ndox da ngay mujj ci ciment bi ba suba. kon li nga nan liggéey do nañ ko mëna a liggéey. waaw li nga bo waré liggéey ñaar fukki saaku juroomi saaku ngay liggéey. te seen am-am day wàññeeku. waaw comme nam warana yokko du ñu day wàññeeku. Ah, loolu depuis kañ la kii. waaw xaw def ay 5 jours ah waaw. lan lañ lan lañ leen wax comme solution ñu ne lu ah ñu ne tuyau bi moo toj affaire bi loolu gars yi yaa koy defar daal loolu rek lañ ciy am. dañuy dundee yaakaar. waaw ñun ñu toog di dundee yaakaar daal. ah ñun jigéen ñi de amuñu ci problème ndax barki dem lan fi ñëw xanaa suñu sëriñ ñuy liggéey waaw. Ah, bëgg liggéey te mu amuñu ndox mu ñu liggéey loolu daal moo doon seen jafe-jafe. yéen jigéen ñi amuñu jafe-jafe fan ngeen amee ndox. ñun ñun de amuñu jafe-jafe ndax mën naa dugg ci dëkk bi sax li janti ndox indi ñu. ñii pour ñoom. waaw. est yaa ngi koy def. waaw. waaw. Hmm. Ah. mais yow bu amee problème ñoom am yow ñoom bu ñu. amee problème am naa problème parce que seen problème mooy sama problème. vraiment métti na ñun dañuy jaay ndox nag mais métti na ci gars trop c'est que ñu ngi jaay ba jënd barigo si 900 barigo 800 barigo 750 bu ñu amoon ndox itam ah moo leen di gën a arrangé mais nag arrangé ñuy borom sareet yi it oui loolu la. waaw mais est-ce que yow loolu nekkul. Euh, vous faveur parce que yéen li ngeen doon am yéen a koy am lu ëpp loolu ci journée. non léegi ndox mi sax nu mu doon kii léegi doxatul xaw naa tane ci gars yi ndox xaw naa dugg léegi am na ay jamono fii benn ndox amu fi mais léegi sax tane na moom vraiment.